wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat rahmatullaahi wa barakaatuhu ñu ngi yëkkatee kàddu ci tuur sunu kilifa sunu jëwriñ sëriñ Habibu moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ bi sëriñ Habibu ak waa Touba ca kanam ñu ngi lay nuyu te di la siyaare di jéggalu it kàddu yi ñuy yëkkati fi sa kanam ndax dëppoowut ak li nu jàngal waaye day ndigal rek lu nu suñta bañ a jëfe ginnaaw bu nu la siyaare di ñaan suñ borom mu yàggal la fi lool suñ kanam te may la ak wér liggéey bi ngay liggéeyal sëñ Tuubaa it ni nga ko bëggee yàlla na la suñ borom kàttanal ba nga defee ko noona ci bàkkib sëriñ bi li nga bëggul lu dul moom ci kaw suuf muy ngërëmu sëñ Tuubaa itam doonte am nañ ci am nga ko waaye du doy ndax sëriñ bi bi muy dem ci géej gi wax na ne am na ngërëmu yàlla doog a dem te te daa mel ne boobu lay doo ko tàmbali kon yow itam gannaaw suñ borom daa yëmut fenn sëriñ tubaa yëmut fenn ci suñ borom yow yàlla boo yem fenn sëriñ tubaa kon ñu ngi sant bu baax mbakki di wax ne mboolum tubaa ci kanam ñu nag tey ci njiitu sëriñ Habibu li leen indi fi mooy siyaare si la yeesal si seenug laxasaay fedd si seenug jaayante seen diggante sëriñ tubaa te nga nekkal fi bi te mbooloo mi ba mu booba ngay jëwuñ Cheikh Sidil Muxtaar ñu ñëw wax la ko nga yëkkati woon ci kàddu yu soññee waxoon ne am naa ci yaakaar te yaakaar jooju alhamdulilah man suñu boobam dëggal na ko ba agsi fii waxoon ne itam lu yomb la lu gaaw la waaye nag daa laaj pësteef ak itte ci ñu koy taxaw soññee ci soññee yoo xam ne ñëpp gisoon nañ ko te doon ca dox mel ne it ñu ngi ci doon dox ba agsi fii ba tey jataay bi nga toog jataay bi sëriñ ba ñëwee da ngaa wax de maa ngi seddali sama laxasaay waaye nga wax ne yaakaar laaj amoon waaye am naa ci yaqiin loolu nag buñ ci amee dégg-dégg ñun ñu ne ci kanam mbooloo mi loolu war nañoo soññ war naa tax wawuñoo taxaw wawuñoo geesu wawuñoo yàlla moom suñu laxasaay te war na noo am pas-pas ak yéeg-yéeg bu toll ne lépp loo xamante ne bëgg-bëggu sëriñ bi la ci dëkk bi ñu gëm ne nun moo ko wax def te loolu mooy suñu pas-pas mooy suñu yéene kon mbooloo mi nanga xam ne la leen taxoon lu jug muy bëgg a liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk bi daal loolu rek ca lañ ne ba tey ginnaaw dañoo liggéey ba am at jeex nag 2020 bi jeex na ñu dugg 2021 ñëw di yeesluwaat di la leeralal liggéey bi ñu liggéey ci 2008 bi di di taatanaat itam di digluwaat ndigal di la wax it naalaat naalaat nañ fas yéene gën a feddaliwaat suñu laxasaay ci li li àggagutoon lépp ñu àggale ko yi nga xam ne itam fas lañ ko yéene sumb it ci at mi ñu sumb ko di ñaan nga defal nu ci ndimbal ci bàkki sëñ bi ba nuñ ko yéene nu ko ne Mbàkke noo ngi ziyaare bu baax te fet di suñu jaayanteeg sëriñ bi di ñaan nga yàgg fi loolu te ci liggéey yi nga xam ne jotoon nañ koo def ak daaw jéeg lu mel ne bâtiment université bi moom jàpp nañ ne eh, li ciy des dana noppi ren incha allah ba daanu jébbale caabi yi xayma nañ ne xëy na bu ñu ci defaate ñaar téeméeri million ak juróom fukk dana mat lu jëm ci daaray alxuraan yi daaw jàppale woon nañ ci juróom benn fukk ak juróom ñeent jàngalekat alxuraan yi tamit ab lim ci ñoom àndoon nañoo ñoom ci eh, dawra takwin ya boo xam ne dañ doon dollanteeg ñoom xam-xam ci wàllu yor daara ak taxaw ay donga lu jëm ci wàllu wér yaram moom naka jekk noo ci woon bu weesoo bërëbu fajukaay bu lansaar ba ñett ñett noppi woon na ci benn ba moom tàmbali naa dox bañ defoon lansaar yeneen ñaar ya mooy bu nekk boobadeel ak bu nekk kër gol yooyu mooy yi ñu war ubbi fi ne nii am na yeneen ñett nag yoo xam ne moom mi ngi dana noppi ci at mi bu caalandee mooy ndaaram ndaam daalu alimul xabiir Touba Njaareem ak daalu xadim ñett yooyu moom daanaka léegi ñu noppi fi mu ne ren ci jaayante bi nga xam ne amaloon nañ ko ci defarum yoon bi màggal gi waaj a tàmbali jotoon nañ cee defar juróomi kilomètres yoo xam ne ay tali la yooyu moom noppi na ba fi mu ne oto yaa ngi daw euh, ci biir tali yi nag da cee am diggante yoo xam ne ak ci biir dëkk bi lu mel ne fii ci wetu tokkoor bi lu mel ne ca euh, wetu arrondissement lu mel ne ca yoonu Touba Njaareem wa jëm fa ñuy wax quartier Mbay Wadd ak Kër Baylaat yoonu Njurul diggante yooyu day ay bëre bu ndox yu taa yooyu nag lañ fay def moom béton lañ koy defaree du doon du tali yooyu lañ ci jot a defar toll na ci Euh, ñeenti téeméer ak ñeent ñaari junni ak euh, ñaar téeméer ak fanweer ak juróom ci ay mètre carré yoo xam ne defar nañ ko ba noppi bu dee canal ak i tiwo yi nga xam ne ci la ndoxum taw yi di jaare jot nañ cee defar lu toll ak ñetti junni ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ci ay mètre ci diggante yooyu nga xam ne taataay ndox yi fi la fi la gënoon a fese lu mel ne euh, ci wetu arrondissement bu ndam def nañ fa lu mel ne foos boo xam ne ñaari pompe yu mag lañ def ci biir ngir ndox yi bàyyi ko ci arrondissement ba di bàyyi ko buntu kër sëñ Touba romb gendarmerie bi ak li bàyyi ko Touba Njaareem ndox yooyu foofu lay dajee pompe bi pomp ko nag dugal ko ci canal bi dend ak wetu kër sëñ Modou Kara ci wetu euh, rond point bi bu ko defee mu daal di dugg ci réseau bi daal di jàll foofu nag danañ fi jaaree gërëmaale waa ONAS hmm. ndax ñoom jàppale nañ ñu lool ci liggéey bi ci ñoom ñi nga xam ne ñoo yor réseau assainissement bi ba nga xam ne li Touba ca kanam di liggéey lépp bi mu ñëwee fa la koy fa la ko fa ko def dem hmm. bërki démb seen directeur bi ñëw na fi wër na liggéey yëpp sant ci gërëm ci wane ne ànd gi nu ànd ak ñoom jaar na yoon te liggéey yi ñu jot a def yu yu mat a rafetlu la. daaw ci eh, ci magal gi jub si tamit am na luy tollu juróom fukki mbedd ak benn mbedd yu mag a mag ak yu yam ak yu sew yoo xam ne sëkk nañ ko maasale ko defar ko ba yoon wa bañ ma ba mën a jàppandi. loolu mooy li aju ci defarum yoon yi nga xam ne jot nañ ko liggéey daaw lu jëm ci wàllu leeral te mooy lamp ñuy jënd daaw indi woon na ñetti junniy lamp yoo xam ne euh, euh, installé nañ ko ci quartier yi wër dëkk bi yëpp ci biir ci biir corniche bi ak ci bitti corniche bi ren ji waajalaat nañ ci yeneen juróomi junni yoo xam ne fa fas yéene nañoo bala ñoo màggal bu ci yàlla àndee ñu indi ko installé ko lu jëm ci wàllu social bi nga xam ne moom la sëñ Murtala jiite daaw li ñu dimbali ci ay nit jàppalanteeg ñoom ñii ci ay ordonnance ñii ci ay waay yooyu matoon na ñeenti junni nit ak ñeenti téeméer lampi corniche ba tamit poto yi commandé nañ ko ba defar nañ ko bitim réew ba ma ma ma nga ma yoon wi ñëw câble Euh, am na ñoo koy gëstu fi mu ne bu ñu noppee dañ koy jox Senelec bu ñu ko validé ñu jënd câble yi daal di jublu ci liggéey bi ndax jëmmi lamp yi moom mi ngi fi woon ba noppi assainissement bi ñu war a def biir kër Sëñ Touba tamit moom it euh, euh, ingénieur yaa nga koy gëstu li ko war a defar lépp noppi ne dañuy xaar gëstu bi noppi rek ñu daat koy sangu moom it daat koy yóbbaale lu jëm ci wàllu ndox mi daaw ci ja waxtu wii rek daa tolloo forage yu bari paanoon ci dëkk bi tombeek tamit ci jamonoy mbas mi couvre amoon ba nga xam ne roti guddi du woon yomb pompe ya paanoon yëpp Touba ca kanam jëndoon na ko ca jamono jooja quartier yu baree bari tamit xëcc nañ ndox yóbbu fa lii ci tënk mooy li nga xam ne mooy mooy lenn ci liggéeyu liggéeyu liggéeyu daaw bi. ñu leen sant leen gërëm bu baax a baax a baax ci nga waxoon naa ne bu gàllankoor amut da ngeen àgg ci dëkk bi lépp mën ngeen ko moom laa gisoon te ak ngeen foo xam ne benn rek ngeen ja ngeen jéggi dem te du leen du leen taxaw. pastéef bi leen taxoon a jóg bu ca dara soppiku pastéef nanguwul yox yox yi bu ca dara soppiku déedéet yow yow laay waxal ndax ñoom ñëpp dañu xool sa yow tey déglu yow kon na nga xam ne yow alhamdulilahi rabbil alamin jiitu gi xel dal na ci ànd rawatina kilifa day seet boppam ci biir mbooloo mi loo xam ne mënu ko mënalu ko mbooloo mënu mënu ko ci biir mbooloo mi ci wàllu xelam ci wàllu jikkoom bu yaakaar ne loolu moom am na ci ngànt il faut mu am ku ko mën lool ko ku ko ca loola Abdou Lahad mi mën na loolu góorgóorlu leen rek bu ngeen góorgóorlu góorgóorlu leen ci waxtu bii moom dem rek te yaakaar naa li ngeen weesoo gis ngeen ni mu demee fa tabaarakallaahu lu bett ñëpp la lu koy njort la lépp di di di sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dëggu dëggu ci yéen sëñ Tuubaa nekk ci yéen ngeen ngeen ngeen jóg ngir sëñ Tuubaa loolu li ñu weesu lépp leer na taal bi yëpp nangu nañ ko xam ñëpp xam nañ ko man nag man ci njël bi gi waxoon naa leen ko man li ànd ak man damay dama dama damay maag maag dama damay wut fukki murid saadex yu yu ko yéene te mënuñu ko ma ma jox leen leen muy muy muy fukk maag maag ñoom bi nga xamee ne yàlla dogal na liggéey bi dama wax dama war sama yëpp sama lépp dama ko sama lépp sama lépp sëriñ bi dama ko war a yokk jëm ca kaw loolu moo tax ma ne leen kon def naa ko téeméer waaw def naa ko téeméer juróom-ñeent fukki murid saadiq ak juróom-ñeent ma fukkeel leen ñu ngi nii. fekk maa ngi noyyi rek ngi noyyi rek te yaakaar naa ne maa ngi ñaan am ñu ma ca wuutu waaw <laughs> waaw kon sa yaay bi mu ngoog mu ngoog bu dong la demee bokki taalibe yëpp dégg yi añ yi bokk yi bokk ci liggéey bi ak yi ci bokkul na ko ñëpp ne ko jëpp dégg waaw noonu dong la deme kon noonu rek la demee waaw euh, xanaa ñaan nag ci baaxu sëñ Tuubaa san borom gën gën leen a gar nag tawfeex sëñ Tuubaa rek ndax tawfeex lépp lépp lépp lépp tawfeex sëñ Tuubaa la waaye nag ñu gën leen a ko ñu ñu ñu gën yokk waaw ñu gën a yokk te tawfeex sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ci yéen ba ngeen mën a dem ni ngeen ko bëggee sëñ Tuubaa gàtt na leen ngërëm moom waaw ngeen mën a dem na ngeen ko bëggee sëñ Tuubaa gàtt moom kenn ku ne xam nga fa nga toll ci lu baax waaye fa nga toll ci lu baax nag loo ca weesu rek geesul rek weesu xeeb ko mel ni ku doon jugaat kay nga nga tàmbali loo ca weesu rek xeeb ko ci li nga jëm waaw day ah, yàlla yombul yàlla yombul yàlla yombul <laughs> waaw bi moom mooy kenn ku ne boo buñu jaagee nga def langa man rek la nga la nga mën sa kem sa kem kattan bu pëstee sell it jëmat sëkk loo ca man loo ca man rek ca ca ca ca li nga xam ne yaa ngi koy def te xam da nga ko dimbalee nga bëgg a dimbale miskin yi néeg ji doole yi ndax moom loolu kon mooy social bi kon nag loolu moom ñi ko ñëpp dégg lu ca waay man na koy def bu mu xeeb bu mu yéem waaw bu mu xeeb bu mu yéem waaw mana mana mana mas naa bis fii ne la ay silmaxa lañ silmaxa nag bu nekkee ci am néeg edam eh, nekk ci nii ba saafara nekk pourcentage nekk ci xamewu ko kuñ dimbali wu daal yàlla dimbali ngi Sëñ Tuubaa rek waaw liggéey bi dañ ko si ñu yëgee bu ñu yëgul moo loolu bu tiit dara moom tawfeex sëñ moo gindi waaw tawfeex sëñ mooy gindi sëñ bi tawfeexi boromam la la sama mag yi nekkoon nga ñoom gën la ba ngërëm la lii nag kenn kenn neexlu ci kenn ñëpp dañaa war toog bi ñu ay gor fas ñuy jox suñu bopp suñu lépp ngir suñu Tuubaa duñu la war mukk ci àdduna Mbàkke duñu la fa xasal ci àdduna bàyyi leen suñu bopp bàyyi leen sa bopp bàyyi leen suñu bopp bàyyi leen sa bopp ñaan nañu rek bu ñu seytaan am yoon waaw waaw ku demul kay noppi naa ku dem ma dem ku demul ma dem loolu laa bëgg de jàmm bu ne sañ naa wax lu mu bëgg xaw ma ci sama bopp dara mënul lu sama bopp dara doonu ma ci sama bopp dara waaye nag li ma bëgg moom